ألا يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيء شديد التراكم فها نحن في ضيء ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم عليكم mbokki سنغال السلام عليكم département de Tivaouane يب Fi ci Tivaouane bu Seydil Hadji Malick Sy ci site boobu nga xamante nit ñi ñu ngi ko gën xam ci Pape Malick Mbaye TV mbokk ñu leen wax ngeen xaar ñu incha allahu rabbi bu burdi commencé ci TV bis bu jot dinañ leen indil benn burd ci burdu bi incha allahu rabbi muy fukki fan ci noppalu bi am programme buñ ci programmé surprise dañ ko def incha allahu rabbi ba ñuy ci gi di wax képp koo xamante ne ci auditeur u Pape Malick Mbaye TV ngi ñu ngi lay ñaan nga xippi say bët di xool ubbi say nopp di déglu incha allahu rabbi ni ko suñu mag ñi daan defee ci burdu bi incha allahu rabbi noonu la ko xale yi di defee ci Pape Malick Mbaye TV nañu ñëpp xaar incha allahu rabbi dinañ ko defee ni mu gën a rafetee defe ko ni mu gën a di dinañ ko jox bis par bis pendant dix jours yi burdu bi incha allahu rabbi noppalu ba ñu indi leen surprise bi suuru gàmm nag nañ leen wax incha allahu rabbi nañ leen defal alxaaji Mbengue Diop ak Pape Malick Mbaye TV jërë ngeen jëf alaa yaa rasuulallahi yaa afdalal waraa fahaa fi dayin shadiidi walam narju farijan siwallaahi walhaadi li sublil makaan